Euh, dugg direct nag ci li nga xamante ne moo ñu tax euh, dugg ci euh, jug ci mbir mi mooy ci li nga xamante ne moo aju ci alquran al karim xamle may kan wala comme nuñ koy laajtee toujours même bu nekkee sax léegi nekkatul loo xamante ne lu ump nit ñi di sant suñu borom bu baax a baax nekk di des daal toujours daal ci suñuy tànku mag ak suñuy tànku seriñ tamit de saa ni saa ci biir këram laa nekk nii ci biir appartement am fii nii voilà man nag maa ngi juddu trente et douzième mois quatre-vingt-dix-sept maa ngi commencé jàng alquran al karim fin deux mille trois mais fin deux mille trois bi foofu fekk maa ngi commencé mais sama làmmiñ bi liwul woon pareegul woon taxaw quoi mais noonu ci jéem ci ijji bi noonu ba presque deux mille quatre la commencé jàng normal mm-hmm. maa ngi wàccee deux mille six ba ma wàccee deux mille six toogaan naa foofu ba deux mille neuf ma doog a mokkal walillahi alhamd le huit février deux mille neuf laa tari kaamil boobu maa am douze ans maa ngi am douze ans onze ans douze ans voilà bama ma paree foofu nag ma commencé jàng franco arab am na beneen daara bi ma njëkkoon a commencé mais li ma fa yóbbu ba mu demee ba mu mot ci laa jógee ñëw fii ni daarul imaan fii daara ji nga xamante ne suñu papa suñu sëriñ mo ko moo ko saytu moo nekk di ko diriger Habibullahi si ci loxoom fii nii laa jàngee xam-xam ba am tamit sama lijaasa tamit ci riwaayatu warsh ak ak xafs ci daara ji fii nii tamit laa ame sama bac laa defee sama certificat am fii tamit sama BFEM fii tamit laa ame tamit sama bac ba tey jii nii tamit maa ngi jàng jàngale yooyu yëpp loolu yëpp dañ ko fiy jàngale ñetti riwaaya yëpp ñetti riwaaya yëpp tamit am naa ci ijaaza macha ci loxoom moom tamit laa ko amee voilà ci diggante boobu tamit jot nañ def tamit ay jéego yu bëri ci côté alquranul karim kon moom toujours daal ci loolu lay yëngu day bëgg tamit ñun taalibeem yi ñun doomam yi ñuy dox ci ay tànkam macha allah nekk na koo xamante ne ku xër ci lu baax surtout tamit ci loo xamante ne moo aju ci alquranul karim amoo ci caaxaan ci loolu jot na ma yónni ci ay concours yo yu bëri depuis deux mille euh, deux mille onze la mbir yi commencé dem naa Côte d'Ivoire juge foofu dem Soudan juge Soudan dem euh, Arabie Saoudite jóge Arabie Saoudite dem Malaisie jóge Malaisie dem Tanzanie mais alhamdulillah yàlla def na ci yooyu yëpp sutura yàlla def na ci yooyu yëpp sutura certes benn nit kese moo ci participer moom moo dem mais peuple bi yëpp tamit moo nekk tamit ci ginnaawam di ñaan tamit voilà moo tax ñoo ciy sant bu baax a baax yàlla di nuyu tamit ñëpp di leen ñaanal ñoom tamit fàttewu leen ci ay ñaan macha allah. macha allah Oustaz euh, Moujtaba bëggoon nañu xam. Mhm. ndax euh, Cheikh si moomu benn Moujtaba rek moo fa génne wala bari na yeneen. muccabaa yu bëri yu mel ni moom yi fa génne. kay nekkul benn muccabaa kese moo fi nekk ay façon yi façon yi muccabaa ñoo fi nekk. <laughs> macha allah kon ñëpp ñëw. ñoom ñëpp ñoo ngi ci yoon tamit. macha allah te en plus tamit nekkul ci domaine Qur'an kese tamit ci domaine xam-xam yi tamit ay ay ay ay façon façon ñoo ngi fa. macha allah daara bu mu si Sénégal. daara bu ngi nekk fii ci Sicap Mbao. Mm-hmm. mooy nekk fii ci Sika Mbao ci en face Belge yi Mbao fii la ñu moom moom moom moom Daarul Iman. waaw. macha Iman pour ñëpp la. mais moom moo ko saytu. dëgg la. voilà. ngeen tàngal ngeen baat bu kon ñu ngi leen di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 خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين صدق الله العظيم ما شاء الله buñ ci yokkoon tuuti rek ma jooy. wax dëgg yàlla sang yi kontaan nañ trop. alhamdulilah alhamdulilah yi yëpp tooy nañ macha allah ñëpp xam leen bàyyi ak Idrissa kii kay macha allah jumoo looyi noonu nga kii noon noonu ñoom ñoo may jàngal alxuraan sax déedéet kay bilaay ñoom ñoo may jàngal de ñoo ñëw ba fii di ma jox cours samay xarit lañ non samay xarit lañ ay gars yu baax le non trop Sénégal de taman début bi ba ñuy ñëw di ma jàngal dañuy commencé jékki-jékki rek commencé neexal ma ne ko saa yi dafa nànk lii mënu ko def. dé dégal Momo Momo nee na nga jàng. Momo man. <laughs> Momo. oh nañ bàyyi noonu rek. <laughs> nañ bàyyi noonu rek. man daal la ñu jox la combien de yow dans combien de yan at yooyu. pour jàng dans six mois kon mën nañ joxante rendez-vous dans six mois wala. pour jàng bi. waaw. amul benn problème. <laughs> eh dama koy gérer de. barki yàlla maa de. amul problème noonu la chaque jour nekk quoi ku nekk rek. bi man gars kii laay déglu de temps en temps. oui moom si moom laay jàng di topp yenn affaire yi parce que bosam moo gën a yomb. laay déglu. noonu la waaw maa ngi kii quoi parce que neex na ma trop. nii maa maa ngi ci jàmm dañuy góorgóorlu rek. non bilaay maa ngi si de temps yi maa ngi si. gars yi la ñu jàngaloon xam nga ñuy nekk xale. problème bi ak beneen affaire wala nga dugg oustaz bi ne la tari nga tari rek mu dóor c'est ça man man loolu moo gënoon metti si dima ma jàng axuraan yëpp temps booy mooy jàng axuraan pare nga am na yenn affaire yoo xam ne si histoire yoo xam ne si diine ak histoire yoo xam ne jotoon na am genre si ay yonent wala dara te xamoo ci dara dara dara dara yow da ngay ñëw mun julli genre tari saar pare na yow saar bi sax doo xam ni muy wax jàng gumba yu garaaw da ngay ñëw rek tari dem boo tariwul ñu dóor la dañuy dañuy bëri tellement si daara yi yooyu ñëpp ñëppay tari loolu ñëppay ñooxundoo c'est ça loolu la ah, la waaw gars yi nee nañ ki ngay déglu noonu mooy Saadul Ghamidi la tudd moom la saat la <laughs> temps yi nii am na ñaari saar yu ma def objectif ah. Ah. ñaari saar yoo xam ne mooy sama objectif moom laa bëgg jàng ban ak la benn baa ngi nii xaaral ma andi la ko léegi saar bi dama doon nelaw quoi parce que dama tàmm su may nelaw dégg alxuraan ma koy déglu ma siy dégg genre euh, début bi yàlla di tagg boppam affaire bi kii ma quoi ma ne. dinaa ko xool. ak euh, Arrahman tamit. Mhm. Arrahman def naa objectif. Euh, ak almursalaat. jàng jàng ko bu baax rek gars yi nee na ñun ay boy Dakar lañ quoi moo tax ñu ñuy jàngal jàngal gumba mais ñi fi jaar ñi yëpp Dakar lañ dëkk de. non ah. booy fii lañ dëkk booy jumeau yi. West Foire fii lañ nekk bàyyi leen foofu West Foire nekk day du garaaw la ñuy jàng. ñu dal moo baaxul rek man xam sama yaram moom ku ma dóor ma bàyyi. dañ ma dóor ñaari ñaari daara sa boobu nga xam sa boobu nga xam man daan ma fa yàgg de. Ah, jàng rek. boo ma dóoree doo ma gisaat. naga naka naka weeru koor bi. ça va tranquille si jàmm si jàmm rek. ñoo ngi si jàmm bu baax alhamdulilah Ficha moo ne ñu dugal la gars yi ñu ngi lay ñu ngi lay xaar ci tari bi. <laughs> waaye ziar ñëpp. <laughs> kii Bamba Mbacké. <laughs> gars yi neen nga may ñu benn. wala benn la. nga taril ñu benn saar rek loo mën rek. ah mën naa leen waxal Fatiha xanaa bu baax. nga xamante ne mooy saal bi nga xamante ne moom foofu ngay commencé. yow yow yaa ngi suivre direct bi suivre nga ko tey. mais suivre ma ko vite la duggoon sànq gis la après dama génnaatoon quoi. mais vraiment suivre ma ko. gaa yi tari nañ fi affaire yu neex affaire bu neex. waa gis naa ñaari bi may tombe ñaari jumeaux yi laa tombe quoi bi ñu bi ñu jàng noonu. non ñooñu moom ñu jooyloo. en fait ñaar ñooñu ñaari booy xam naa leen quoi. dëgg la dëgg la waaw ñu jàng nañ lu jàng nañ lu neex daal waaw. sëñ bi maa lay ziar bu baax. ñu lay delloo ziar sëñ bi waa lépp jàmm rek. ñu ngi sant bu baax alhamdulilah. ba pare. waaw naaf li naaf rek. macha allah léegi dañu bëggoon. Uh-huh. gaa yi nee nga tari Fatiha bi gaa yi public bi public bi nee na nga tari Fatiha. <laughs> <laughs> aja bismillah waaw bismillah auzubillahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi diini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdaalliin amin masha allah boobu moom boobu moom Oustaz Mohamed noteel ñu ko. <laughs> yow dafa mel ni yaay yaay jël péere. concours bi yaa mais foofu foofu moom lool moom moom la ñuy jiital chaque jour xam nga. donc si teg yeneen yi. commentaire bi gars yi kontaan nañ waaw lu am solo la. waaw mais jotaay bi jotaay bi nice na lool. dëgg la dëgg la. ah sa waay na ma si jox benn man moom benn spécial ma jël ko man tam ah. ñu jox la si waaw. léegi xool bu trois jours yi jàllee après yow yaay jël. ah. naa la boole saa waay incha allah. dina ma neex de ma génne yeneen sax. waaw <laughs> comme ça ñi amul change jàll si man dinañ jàll si yow. <laughs> waaw